nabiyina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di fàttali sunu bopp di fàttali sunuy mbokk ndax sunu borom moo ñu digal nañu fàttalante fàttali dina jëriñ fàttali bi mi ngi jëm ci lan mooy waru garu ku gëm yàlla bu déggee lu ñaaw ci mbokkum jullitam kenn ku ci nekk ci ñun lan mooy sa waru gar saa boo déggee lu ñaaw ci sa mbokkum jullit mbokk yi xam ngeen doomu aadama yàlla daf koo bind mu nekk ku manqué matul yàlla bindul benn doomu aadama bu mat doomu aadama dafa am ay gàkk-gàkk day am ay tilim tilim loolu aajowul xam-xam bu bari ku nekk rek nattu ko ci sa bopp boo wéetee sa biir néeg mu wóor la ne yow yàlla nga jàkkaarloog sa bopp xam say gàkk-gàkk li nga xam ne nit ñi ko yàlla bindee day am lu baax am lu safaan lan mooy sama warugar kon su ma déggee lu safaanu lu ñaaw ci sama mbokkum jullit sa warugar kay yomb naa xam mooy lan mooy sa warugar bu doon lu ñaaw moo nekk ci yow nga xam ko da ngay bëgg mu nëbbu la tawaddu an law yaalamuhu jamiu ahli l ardi kullihim xaw tuuti kon da ngay bëgg waa kaw suuf bu kenn xam jëf ji ndax da ngay suturaal sa bopp mbokk mi ni ngay suturaalee sa bopp est-ce que sawar nga ci suturaalee sa mbokkum julit noonu te yàlla ni sa mbokkum julit mooy yow yaay moom wala talmizu anfusakum bul ŋàññi sa bopp mooy sa mbokkum julit mbokk yi xam ngeen dund gi ñuy dund faaw rek nit ki di am ay gàkk-gàkk ci tilim tilim su dee da ngaa fas yéene bëgg gis waa joo xam ne benn gàkk-gàkk du ko am benn tilim tilim du ko am su boobaa bëgg ngaa gis nit ku nekk malaaka te loolu mënta nekk waaye mbokk yi est-ce que ñun ñu ñuy dundee ci nit bu yëgee gàtt gàtt ci mbokkum jullitam noonu la salafu saalix doon dundee laa wa alfukalla déedéet wallahi mbokk yi nit daana julli mu sujoot mu jooy ci sujootam ngir ni dafa dégg gàtt gàtt ci mbokkum jullitam muy ñaan yàlla jéggal ko te suturaal ko moom yoonam néew ci moom day ñaan yàlla rek ne suturaal sama moom dafa mel ni moo def mbir mi fonkalu magum jëmm te kenn dóoru ko bu yëgee lu ko naqari ca xolam ba mu sujjóot di ko jooy loola màtt na xolam te sama mbokkum jullit kese la yàlla diw lii yàlla na ko suturaal lii bu ko kenn xam ci kaw suuf waaye déedéet nun de li ñuy dundee mooy safaan wa daal wu dëpp daal wu dëppar ñiku la dafa mel ni mbokk yi ñun ku wax te yàlla tax dafa mel ni ñun dañuy am benn plaisir ak tawarte saa boo yëgee lu ñaaw sa mbokkum jullit xaw ma li may wax xam ngeen ko xaw ma xamu leen ko waaye mooy li am gis ngeen ni jullit di kontaanee su déggee lu baax ci mbokkum jullitam ñun dafa mel ni noonu la ñuy amee plaisir su ma jékki-jékkoon dégg ni hii diw def na benn gàkk gàkk bu garaaw automatiquement bu fekkoonte ni li nekk xol bi baax na automatiquement bu réveillé woo rek li nga waroon a njëkk yëg rek mooy am puis ndax diw mooy man maay moom su tilimee maay tilim waaye déedéet ñun la ngay yëg mooy neexit mel ni yow da nga doon sawar ci moom mu am gàkk gàkk te mbokk yi xanaa xamu ne doomu aadama yi matuñu ku nekk da ngay def ay njuum ci kullu bni aadama xattaa doomu aadama joo gis mu yëg ay def kese lu ñaaw la ay gàkk gàkk la xanaa yow doo souhaité nga def benn gàkk gàkk sa mbokkum jullit yëg ko woola ba ci pet ah sa jëf ji de yëg naa ko waaye li nga def di wax dëgg yàlla rafetut bu soobee yàlla day bu bu ko nit ñi déggee ci yow lay bàyyi ko waaye du bàyyi koo ci man te effectivement li mu la wax mooy lu dëgg loolu amatul mbokk yi ay da ngay daw da ngay tiit tey sa mbokkum jullit yëg ko ndax sa mbokkum jullit moom moo lay weeje moom te fekk kooku moo la waroon a taf-tafal moo la waroon a taytayal nëpp nëppal la sutural la ba kenn du ko yëg wallahi mbokk yi am na ñoo xam ni xamal nañ ay it ay gàkk-gàkk yu garaaw yoo xam ni mën naa taalub dëkk fooy kenn du ko dégg ila yawm alqiyaama kenn du ko dégg parce que dañoo gëm ne loolu aarun alay gàcce la gàcce la nit ki di xaaw yi sutura su mbokkum jullitam gàcce la nit ki yëg lu ñaaw demaat feneen di ko fa waxee lan moo tax mbokk yi lu ñaaw gaaw a siiw ci suñu biir tey mooy tey man nii su ma yëgee lu ñaaw ci diw ah bala maa am lu ma neex rek jotaay bi ko ñu kos almet teg ci jotaay bi rek affaire bi cux cuxi diw diw man day man de diw laa yaakaar day bëgg a dee xanaa gis nga yaa ngi kooku di wallaay yaa ngi yokk bàkkaar bi sax nag benn siiwal bi ñu ko siiwal bàkkaar la ñaareel mooy li ngay wax neexu ko te loolu jëw la ñetteel mooy ak rambaaje la jaxase la parce que lu ñaaw saa boo ko nekkilee say mbokk jullit ku nekk een ba muy jël ca moom loola ya- li nga dajale ci ay bàkkaar yàlla rek moo ko xam subhanahu wa taala ci mbokk mi kii def bàkkaar bi yow su jootoo ñaanal ko kan moo ne wax moom jub na guddi mu jooyal bàkkaar bi yàlla subhanahu wa taala kan moo def moom jub na guddi mu ñaan yàlla mu jéggalu bàkkaaram affaire baa ngi tàng di tàkk xolam parce que def na ko waaye rëcc na ko bu démb doon tey du ko def maa xam ngay nit di nga ko xamal ak gàtt gàtt bu garaaw ba tax nga nar ko caa xeeb fekk moo la ëpp ay darajaat inda allahi miaatil marrat ndax nattukaay yi du sunu yére yi nattukaay yi du waa ji sax bu yeboo sax bi moo ko xam-xam waa ji mën naan sax tërul ijji mën naan sax alifun baawun xàmmeewu ko waaye yal na xol bu set boo xam ne yàlla bëgg na ko subhaanahu wa taala est ce que xam ngeen ni li olof yi naan coppet ci bi teg ci bi suñu borom dana ko def mooy nit ki mën naa def benn bàkkaar suñu borom ni coppet ci lu baaxam ni teg ko ca palaatu lu bon la mu noor ca kawam mu réer bàyyil xel loolu de nit ki mën naa def ab bàkkaar nit ñi di ci ngawti ngawti jàpp ni kii musiba li mu def fekk moom am na leneen lu baaxam loo xam ni yàlla day jël lu baax loola teg ko ci kaw lu bon li mu góob ci kawam mu lëbb al allaama ibnu taymiya rahimahullah mi ngi wax ci majmuatul fatawa mu ni nit ki nay ndànk ci jëfi mbokkum jullitam ndax bari waa na jëf joo foog ni yàlla mer na ca fekk am na jëf ju yàlla kontaan joo xamante ni pompé na ko loola xanaa xamoo ne waa ji xaalisam bi mu réer le nattu boobu ko dal day kafaara ay bàkkaar xanaa xamoo ne feebar day kafaara ay bàkkaar xanaa xamoo ne fakkat sallu sa tànk gaañu loolu day kafaara say bàkkaar xanaa xamoo ne waa ji mën naan benn jëf bu yàlla kontaan ci moom màbb lam safaan la woon lépp ila axirihi kon mbokk yi ñu bàyyi xel suñuy diggante xam ni nun rek ñoo di mbokk innama al muminuna ixwa sa mbokkum julit yéen ci yàlla beneen àq bi nga ko mooy laa yaslimuhu doo ko tooñ wala yaxzuluhu doo ko gàcceel doo ko doo ko rusloo doo ko ayibal da ngay mel ni moom comme moom ab miir léeg-léeg nga nangoo loru pour mu jëriñu nga gëm ni moo la gën moo la gën a ragal yàlla même bu nekkee loolu amul jàpp ko parce que sukk du tax a yóbbu say oom du tax nga ñàkk say oom sawaabo dafa jeex ci ñun ça veut dire que bi ngay jàpp ni kii bàkkaaram di nangam yaa ngi gëm ci sa xol ni même boo ko waxul bi lisaanil xaal lisaanul maqaal boo ko waxee ci lisaanul maqaal lisaanul xaal mi ngi fas ni kii moo ko gën parce que bu doon yow doo ko def kon yaa ngi tazkiyee sa bopp yàlla mu ne fala tuzakku anfusakum mu sag tazkiyee sa bopp parce que yàlla moo xam huwa aalam bi man ittaqa huwa aalam bi man ittaqa ndaw sa mën naa njaaloo ba jóge fële ñëw ni maa njaaloo ñëpp di ko xoolee bëtëb ku bon ki nga doon fekk tuub na tuub goo xam ne buñ ko séddaloon waa Madina yëpp ku nekk am ci loo duggee àjjana ah waaw bàkkaaram boobu nag koo ko teg naan sàngara bay kayin kayin ku nekk di ko xooli bëti ku bon ci sàngara nekk koy naanee fekk innahu yuhibbu allaha wa rasulah siiwal fekkalam yonent ba nag waay kaay mag door dox naa fekk bi yonent bi ne déedéet innahu shahida badran te waa badra xam ngeen leen moom yàlla defal leen signature dugg àjjana kon bokk yi kenn ku ci nekk lijjanti digganteem ak boroomam ak ci ayibam yaakaar naa ni koo xam ni yaa ngi yenu bokk gàddu defe naa war ngaa tal li nga yore waxuma nag di yóotu leneen di ca dolli lijjanti sa bopp ndax yow di nga dugg àjjana sa premier guddi sa bàmmeel loo fay fekk sa julli yi nga yow sa teeru ñaata xiyaamu lay li nga taxaw mbokk mi ñaata ramadan nga woor ndax yàlla nangul na la ko innama yataqabbalu allahu min almuttaqin sa sarax bi est ce que yàlla nangul na la ko est ce que yow sa jëf yi sax yaa ngi sellal est ce que sa njàngum alquran mi yàlla moo tax mbokk yi kenn ku ci nekk ñun yaa ngi am lu day sëkk loo xam ni wallaay boo xëyee suba ba nga doon di ko lijjanti doo pare un an mën nga cee nekk sa jiir a dund bis bu nekk ngay def vérification te doo pare defe naa ku am la day sëkk soxla lay jom ak amañum rus mooy toppatoo loola bañ a toppatoo yëfi jàmbur gis nga ku nekk sa mbirum àjjana nga war a lijjanti yow mucc safara fa man zuxzixa anin naari wa udxila al janna képp ko xam ne teetal nañ ko safara tàbbal ko àjjana yow moom xamu looy waxati waaye say affaire baax na faqad faaza fawzan azima lijjanti loolu nag moo la war yow jiw def la lu ñaaw jiw nangam jiw yii bu mu la yitteel wallaay bu la yitteel da def ay gàcc gàcc sa xol est ce que du jaare foofu nga bañ ba noonu ku yàlla bëgg te man aada lillahi waliyan faqad aadanahu llahu bilharb ku noonoo wali yàlla yàlla déclaral na guerre est ce que yow waa ji een bi nga ko jàppal tey ci guddi su fekkoon da ngaa gént gis ñi te gént gi dëgg ñu ne yàlla gërëm na waa ji yaakaar naa boo yee bu dee ko gëm yàlla da nga bàyyi la nga jàppoon kan moo la wax loolu mooy li am sax effectivement kenn xamul kon mbokk yi nañuy rafetal suñuy diggante nañuy nëbbalante yi ayib nañuy suta doomu aadama ju nekk am nga loo xam ne bu la ko sunu borom waxal nga takk say bagage tuxu waaye yàlla sabtaar subhanallah day sutur la waate moo tax nit ki di bari lu muy ñaan yaa allahuma sturni fawqa al ard wa taxta al ard wa yawma al ard alayk yàlla yàlla nga sutural fawqa al ard ndax maa ngi dund ak nit ñi wa taxta al ard sutural ma bu duggee ci biir bàmmeel maa ngi ci suuf si wa yawma al ard alayk alaxira ma dajeeg yow am na yoo xamante ni bu ko yàlla feeñaloon rek sa waay sa sa addina bi yàqu te yaa ngi ko def nga ni ñii ñii gaaral ñii wax waxi jàmbur nga dugg ci ba sa gémmiñ tuur te fekk na am na loo xam ne buñ ko tuddoon rek sa waay nga seey foofu yàlla mi ko xam malaaka yi ko bind ñun ñëpp mënoon nañoo xaalis ci koro waaye yàlla subhanahu wa taala defut loolu kon mbokk yi na ngay bëgg sa mbokk julit di jëflanteeg yow dee jëflanteeg sa mbokkum julit noonu mu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq àddina ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain